Thank you. jongante boo xamante ne réewu Afrique yi lay la ñoo koy seq ñu ñëw jox leen drapeau bi euh, nga xamante ne euh, ci turu ministre des sports aussi parce que moom dafa empêché moo tax ñëwul mais ñu am contact contentement bu rëy rëy ak mbégte boo xamante ni nii moom nañ fi ñëwee parce que suñu gaynde yi jigéen ñi comme niñ ko xamee yàgg nañ ñu indil ndam fii ci Sénégal euh, ñu yaakaar ni rek bii tam yàlla dina jaar fu ko daan jaarale dans la mesure où président de la République gouvernement am li ñu waroon def yëpp def nañ ko pour que préparation bi rafet pour ñu am euh, préparation bu baax a baax a baax loolu kon defe naa ni euh, relever nañ le défi de l'organisation parce que Sénégal mettre na à la disposition du basketball euh, africain loo xamante ni nii bijou bu rëy a la muy Dakar Arena mu tombeek nag euh, ñu ci soog a def compétition yi bu mag bu toll nii ñu ñaan yàlla rek yàlla may ñu ci ndam ñu ubbee ko ndam ubbee ko trophée continental jërë ngeen jëf